asalaamaaleykum mbokk yi déglu Rewmi FM 97.5 dalee na jàmm ci seen émission SOS santé ñu ci waxtaan ajuma ju jot ci lépp lu ñeel wàllu wérgu yaram tey nag ñuy am mbégte eh, di ci eh, dalal ki nga xamante ni moom mooy Pape màgget eh, Ndiaye moom nag mu ngi nekk rek volontaire fële nga xam ne moom mooy ca ASBEF ASBEF nag di ab kuréel boo xam ni dafa nekk fii ci réew mi di toppatoo lépp lu jëm ci wàllub wérgu yaramu yaay ak doom ak yeneen mbir yoo xamante ne daf si yëngu dañuy may rek suñu invité mu nuyoo ak mbokki auditeurs yi bu ko defee ñu mën a dugg ci waxtaan bi Euh, waaw asalaamaaleykum euh, auditeur Rewmi FM asalaamaaleykum waa Sénégal yëpp lay tamit di la nuyu bu baax a baax di nuyu tamit képp koo xam ne mi ngi déglu. Mm-hmm. di nuyu aussi le personnel et les membres des de l'ASBEF ñëpp mm-hmm. si nekk di la nuyu te di la euh, sargal tamit ci fa nga Mm-hmm. di la jaajëfal également ci disponibilité bi euh, donc Pape Maguette Ndiaye nga nekk euh, fële nga xam ne moom mooy ci ASBEF. Euh, tey jii mm-hmm. boo ñu doon présenter ASBEF pour ñi nga xam ne peut-être xamuñu ko lan nga ñu ciy wax. waaw présenter l'ASBEF dafa di benn ONG boo xam ni dañ ko créé depuis 1968 waaye c'est en 1974 ci lañ ko reconnaître en tant que ONG mu am statut ONG Mhm. ci même année boobu tamit ci la dugg ci biir li ñuy fi ñu woowee IPPF. Mhm. Euh, fédération internationale sur la planification familiale. Mhm. nga xam ni dafa ëmb lépp képp kuréel. ci mbirum planning familial ak ci mbirum dimbali jigéen ba ñu bañ am mu bindoo dafa am ñaari ñaari ñaari benn bi moo wax les volontaires nga xam ne ñooy amuñ fa salaire amuñ fa dara. Mhm. waaye lépp luy doxal association bi lépp luy doxal kër gi ñoo ko yore. Mhm. ak ñi nga xam ne mooy staff bi mooy ñi fay liggéeyee personnel bi nga xam ne dañ leen recruter. ngir mhm. volontaires yi la ñu xalaat dugg ko. staff bi ñoom ñu mën ko def parce que volontaires yi ñoom ñooy le conseil d' administration ñoom ñooy kilifa yëngu ci lépp loo xam ne day jëm daal si bien-être familial maanaam luy jëriñ famille ak luy jëriñ jigéen ak xale. waaw am na solo euh, donc euh, ñu lay jaajëfal ci présentation bi euh, donc ASBEF di yëngu ci loolu yëpp mais nekk na kuréel boo xam ne yàgg na fii ci biir réew mi muy mëne mhm. ay activité am te daanaka daaw ñu dégg ay coow ak yooyu mhm. mais gis nañ depuis quelque temps euh, ça deux ans ou trois ans Euh, mhm. même deux ans dañu gis dafa bëri torop ci wàllu seen diggante ak seen direction exactement lan mooy fond wu problème boobu Euh, le fond du problème du lenn lu dul euh, daaw au mois de mars dañu euh, doon doon def le renouvellement du conseil de gouvernance mhm. ndaxte ASBEF dafa dafa dafa dafa dafa kii amoon ci lu mu jaaroon en deux mille quinze mhm. moom benn crise bu fi amoon c'était une crise institutionnelle bi loolu amee ba mu taxul directeur bi fi nekkoon ak ñeneen ñi fi nekkoon ñëpp dem loolu amul na sax na sax boo xam ne ko indiwoon ci aspect ba ñu pertoon suñu yenn partenaire maintenant donc la gouvernance di liggéey ci loolu di liggéey ci loolu ba en deux mille dix ñu recruté waat beneen euh, directrice bu bees et tout maintenant en daaw deux mille dix neuf mars dañu doon le bureau national bu conseil d' Mm-hmm. bi loolu amee amoon ñaari candidats yu si doon joxante pour être président national ki gagné muy Adjaratou Khady Ndaw si Patrick mm-hmm. Dessouza ni moom gagné bi Adjaratou Khady Ndaw si gagné doyu ko mm-hmm. ndaxte élection yi dafa am loo xam ni luubal daf ci ne ñun dafa nekk ci soow ah, ci la defee de recours auprès de IPPF bu ma wax léegi nga xam ni te jii mooy suñu bailleur institutionnel maanaam comme que fa jokk kon boog ñun dañuy tënku ci li nga xam ni mooy gis-gisu IPPF. Mm-hmm. ak ci yoon yi nga xam ne moom la teg. bi mu defee loolu Patrick Bessouza porté euh, recours am foofu ci IPPF ndekete ci jamono jooju noonu amoon na ci membre personnel bi. ñu demoon porté plainte tamit ci IPPF ak inspection du travail. directrice bi nga xam ne mooy Myriam Marc mm-hmm. ci harcèlement ci intimidation. ak ci lépp loo xam ne dafa jëm ci malversation ak non respect des procédures administratives et financières ah loolu ba mu amee IPP fi yabal fi mission bi mu fi mission ñu ñëw def lu mat une semaine. Mm-hmm. ñu sant xool li nga xam ne moom la ñuy ji ñii nga xam ne moom laa tudd léegi naam dëgg naam du dëgg. Mm-hmm. ah ba ñu ñoom restitué na ni a ah, lañ doon wax kat dëgg mm-hmm. kon boog directrice bi ki nga xam ne mooy Miriam weer ci diiru weer googu na ñu mën a gën a xóotal saytu ba mën a xam est-ce que lii ñu doon wax la cay dëgg carrément ñu xam ko la ci doon dëgg ñu xam ko maintenant pour jël une décision définitive ki nga xam ne tamit ajarul abi ndaw si nga xam ni dañ ne dafa dafa dafa dafa dafa dafa toñ nu ko falee tamit baaxul suspendre lépp jëm ci installation en attendant que ñuy mën élucider cette affaire là mm-hmm. ba mu amee nag bi bañ loolu ni moom du def loolu ndaxte elle contrat de droit sénégalais dugal dans ay termes juridiques yoo xam ni euh, noonu la fa demee maintenant nag ba mu xamee ñaka ña doon jooy ci li xam ne mom la leen di def ci ci ci intimidation yi ci harcèlement yi moom ci boppam ñu ci bëri mu dàq leen. intimidation yooyu yan façon intimidation la woon. waaw mooy par exemple ah, xam nga di nga nekk ci ci bërëb nekk fa kilifa. Mm-hmm. nit ñi jox cër. cër woowu noonu nga mujj ko jaawale ak moomeel. Mm-hmm. ba tax na ngay dem ñoom di ay doole. ku wax nga ne ko ëwit ku kaas nga ni ko lu tax mm. ku mer nga ni ko du fi amee ku la sax nga ni ko doo dem mm. jël sa kilifteef googu nga am foog ni kilifteef googu noonu moomeel nga koy def ci nit ba ku si rek nga ni da nga koy def lu la neex te dara du la ci fekk te moom ci boppam warul ne warul onk te nag koo yenn lu mu àttanul nag ah bu boobaa nag moom moom dëgg fa neex yàlla Euh, bu boobaa bu boobaa bu boobaa. war mm. eh, eh, na mën onk. Mm. loolu intimidation yooyu mu amee te tamit def ko firndeel ndaxte képp boobu ba léegi képp ku di ko dee lii du jaado wala warul soit da lay sanction wala mu dàq boobu léegi lu mat dix neuf personnes jigéen na as diggante daaw ko ren. te moom moo leen dàq. waaw métti ñooñu ñëpp seen dem ci moom la jot. Mm. ñu gis ne dem na ba yoon daal di ci teg loxo ba euh, justice joxe woon ci ay euh, décision yooyu mais ki nga xam ne moom mooy seen njiit euh, di mingu moom ba léegi nangul tënku ci ci loolu donc mu mel ni tey jii kon peut-être moom li muy wax dafa am xëy na fu mu ko teg ak fu mu sukkandiku. Uh-huh. Mm. xam nga nga loolu daaw. Mm-hmm. affaire bi processus la dafa am ci fu mu jaar ba yegg si fii. Mm-hmm. bi ñu sooraati saisir IPPR ba IPPR ba mu la muy saytu yëpp ba pare dafa mm-hmm. yi nga xam ne moom la ASBEF di denc seen xaalisam mm-hmm. pour ñu bloquer la signature de MIP en attendant parce que bu boobaa dafay continuer def ay opération financière moom mm-hmm. ci la assigné woon banque yi nga xam ne damay bañ tudd turu banque yi bi mu leen assigné le tribunal du commerce ah ni banque yi nañu ubbiwaat compte yi loolu moom taxaw ndamu ci loolu ni moom kon moo am dëgg bi ñu demee tribunal première instance bu Dakar aussi ah ñoom tamit ñu ne ñoom euh, li ñuy wax ni gisuñ mhm. waaye nag loolu ba mu amee DIC dafa saisir document bi mhm. maanaam dossier bi dicté que si muy la brigade des affaires générales DIC mhm. def enquête nag DIC a fait une enquête très approfondie Mm-hmm. ba loolu amee ba dig dafay enquête am yëpp dossier bi parquet mm-hmm. ah mu lu leer loo xam ne ñoom gis nan ko saytu nañ ko ndaxte dig xam nañ ni instance la boo xam ne amuñu xaaj amuñu seen mais mm-hmm. lépp loo xam ne moo jëm ci yoon ñoom ci loolu lañuy dox ci loolu la ñuy moo tax nag juge tribunal grande instance hors classe de Dakar ba mu jugé ci weer wi ñu génn mu daan mingu ñi lañ ko doon jiiñ ak lañ doon wax yëpp dëgg la. Mm. kon boog na dem te Aïda Soumaré Diop la ñuy jël comme administratrice provisoire. Mm. pour mu toog doxal ASBEF. pour mu toog aussi euh, ci diiru benn at. Mm-hmm. jubbantiwaat ASBEF. en attendant nag ASBEF bi mën a amaat un souffle amaat dellu si waat ak fa mu nekkoon. Mm-hmm. partenaire yi doon liggéey continuer waat di ko liggéeyal dox te na mu waroon doxee ndaxte ci tëj la jëm. Mhm. Euh, léegi euh, tey ji ñu gis ne quand même euh, remous yooyu yëpp te yéen dañu xam ne dangeen di yëngu ci wàllu santé ak wàllu sensibilisation. Mhm. donc tey ji est-ce que remous yooyu yëpp demul ba am loo xam ne peut-être yàq na ko ci seen i activité waaw yàq na lu bëri bëri bëri bëri. Mhm. ndaxte déjà partenaires yam doon liggéeyal. ah bu doon téeméer de. gëm naa ni quatre vingt dix neuf pour cent yëpp dem nañ mm-hmm. loolu xam nga jafe-jafe la ñaareel ba mooy tey jii nii ASBEF toll na koo xam ne Sénégal yëpp dem ci tegoon seen bët xam ne ASBEF kat nekk na structure boo xam ne moo jiitu ci mbirum wér gu a jigéen mm-hmm. loolu noonu perte na place boobu ñu amoon ministre de pionnier ASBEF bokkoon na ci ay kuréel maanaam ci lépp loo xam dafa jëm ci dajale société civile bi bu mu ci mënti bokk rek daf ci bokkoon ci ñi nga xam ne ñooy kenn yi ñaka taxawaloon mm-hmm. ñaka dëgër laayaloon parce que perte na place yooyu mu fa amoon yëpp mm-hmm. le GFF maanaam Global Fund nga xam ni euh, depuis deux mille quinze la woon ASBEF bokk ci les membres fondateurs nga xam dañ def ay levée de fonds pour mm-hmm. des centaines de milliards pour jàppale képp koy organisation bi nga xam da ngay liggéey ci population ak ci développement ASBEF tey jii nii bokkatul sax ci GFF boobu loolu dootoo ko ci dégg te ñooñu door nañ sax séddale fonds yi nga xam moom la ñu amoon mm-hmm. ay partenaires yi nga xam ne ñoom lañ doon liggéeyal ka ci jiitu di IPPF ngi le partenaire institutionnel nga xam ne chaque année daan na indi subvention ci lu toll ni deux cent millions IPPF tey na loo xam dootul dugalati dërëm ci biir ASBEF tant que mi ngi mi ngi fi mm-hmm. nga xam ni euh, Fonds des Nations Unies la population ASBEF ba mu dee ASBEF ba léegi UNFPA da koy jàppale UNFPA tey jii nii téye na ay loxo téye loxo PTA PTA bi nga xam moom nag na moom UNFPA da ko arrêté euh, euh, euh, PIP global nga xam ne daaw amoon na projet bi nga xam ne ay projet yu mu financé yu bëri mm. lu jëm ci communication beeg lu jëm ci jeunesse beeg jëm ci lépp téye na na projet xam ne dañ ko négocier woon daaw à une de un milliard deux cent millions muy le projet success nga xam ni lépp lu waroon jëm ci cancer du col de l'utérus dépistage beeg traitement bi mhm. ASBEF daf ci waroon jàppale état du Sénégal pour que ñu koy def gratuitement pour jigéen ñi demoon nañu ba bailleur ba ko waroon financé tey loxoom muy euh, muy muy muy muy muy muy muy United Aid ak euh, ki nga mooy expertise France ñun ñoo ko waroon financé ñooñu ba ñu ñëwee nañ fi sax ba biir Sénégal def wala prospection ñu ànd ak ñoom pour foo xam ne ñoo waroon dem ngir ñu liggéey ak eh, ci projet boobu noonu banque nañ seen loxo nee nañ joxeetuñ seen xaalis ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam tey jii su ma koy lim ASBEF ci gàttal daal ci dënk diggante daaw ren perte na lu ëpp trois milliards de financement hmm. te at bi dina ci sonn de waaye population bi tamit ñu ngi koy gën a yëg ndaxte trois milliards yooyu ñu yëpp ci population bi la naroon dellu ndaxte lépp pour lan la woon di leen faj te duñu faj di leen topp te duñu fay di leen jëriñ te duñu fay di leen saytu di leen dimbali di leen jàppale te duñu fay ndaxte population wu Sénégal bien-être familial mooy njëriñu ASBEF mooy taxali ASBEF taxaw wax na ba tax na koy gisee la mu tudd association sénégalaise pour le bien-être familial mm-hmm. kon moo tënk loolu noonu yëpp te loolu na ñëpp dañ ko perte. Mhm. ci benn nit rek tax loolu. parce que moom xëccoo gi muy xëccoo bayee bi dañ lay jàppale pour nga ànd ak ñoom liggéey waaye bu ñu gisee nag coow ca biir kër ga ak ah ku nekk nag wax dëgg fa neexee yàlla nag li ñu war a naan kuub borom tayu ko waaye ku gën kuub borom ko tey. du ñu gis ci loo xam dafa am ay raq-raq ñu naan dañ fay def seen xaalis wala autre chose. Euh, parce que moom si boppam moom mingu euh, dafa weddi euh, nee na parce que amul benn faute de gestion boo xam ne ñu ngi ko koy toppee donc moom mi tey moom mu ngi ci mun buñ ko wax buñ ko mënee wax dans le ko mënee waxee noonu. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw mais xam nga xam nga xam nga oloymatu li wolof naan ku sa wujj di sëlëm doo set. Mm-hmm. tey jii mingu mënul seedeel ñi nga xam ne ñoo koy topp ci dara. seedal leen li nga xam ne moom la ñuy wax nii dëgg la. Mm-hmm. ndaxte moom tamit bon naturellement dafay euh, défendre boppam. waaye non respect des procédures administratives et financières loolu yaakaar naa leer na ASBEF am na li ñuy wooyee le manuel de procédure administrative et financière. Mm-hmm. manuel de procédure dafa tënk lépp luy opération financière et administrative biir ASBEF téeméer sax boo ko waree génn. wax naan la téeméer bi kat fii la war a jaar fii war a jaar fii la ba génn te bu génnee fii la war a jaaraat fii la war a jaaraat fii a jaaraat ba nga justifier ni téeméer bi fa nga ko génnee ak la tax mu génn def na ko foofu noonu. Mm-hmm. mais ko respecté wul loolu la la tamit ndaxte dafa am ay kii texte yu ñu tëb xanga nga nit ñi tëb ñu tëb rek ni ko defoo. Mm-hmm. tëb parce que mm-hmm. dafa am ci fu ko teg. te fan ko teg moo tax tey jii ñu ne Myriam dafa dafa dafa dafa dafa dafa def détournement y a des malversations parce que manuel de procédure bi dafa ni mm. boo génnee te war jaarul fa mu war a jaar rek détournement la détournement d'objectif la wala de fonds la loolu manuel bi daf ko wax te loolu noonu yëpp daf fi am au plan administratif tamit euh, manuel bi dafa tënk lépp loo xam ne moom la aspect fa war a doxee mm. boo ko jalgatee rek Eh, yaa tooñ te boobaa dañuy dal sa kaw. gis nañ aussi que ne euh, ci li ngeen di wax yéen travailleurs yi ba tey elle utilise les gros moyens ak ay nervis yu muy jël ak yooyu parfois euh, yéen ngeen di euh, jongante ak ñoom ba parfois ay blessé ak ay yeneen di ci am. waaw xam nga xam nga tey jii ni ASBEF ONG la. kon police nationale tey pour mu ñëw dugg biir ASBEF dafay am tuuti raq-raq bi nga xam ne dafa mel ni rek sa biir kër tey jii nii. Mm. police mënu fa ñëw saa yu ko neexee rek dugg. Mm. du dëgg. Mm. ASBEF noonu la demee moo tax mbir am tout le temps la sécurité interne au niveau de l'ASBEF dafa incomber la direction directement moom moo xool voies et moyens yi mu war a moom utiliser ba aar ASBEF ak ña fay lekk ak ña fay liggéey. waaye moom daf cay ëppal ndaxte ay nervi la jël bu doon une société de gardiennage wala une société de sécurité sax à la rigueur nga xam c'est des gis nañ ni foofu bu structures yi ñu respecté yëpp ñoo ñoo fa nekk di liggéey te ñëpp respecté leen tamit ndaxte dañuy def liggéey mucc ay waaye ay nervi la jël ay gros bras. Mm. ñoo xam ne xeex ak xoqatal ak tamit tiital rek moo leen tax a jóg te ñooñu noonu tey jii ni ñoo nekk biir ASBEF. booy dugg dañ lay intimider. Mm-hmm. xam nga tey jii nii ñàkk professionnalisme weesuwul malaat bi nga xam ne mën nga ci biti di jigéen asbef di liggéey ci mbirum jigéen te ku ne xam nga ni liggéey ci feebu wér-gu-yaram jigéen dafa laaj intimité mm-hmm. ndaxte la kay dal tey du fépp la ñuy toog di ko wax mm-hmm. nga ñëw ba ca buntu ba war a dugg mun na looy wut nga ko damay faju si nga ne ko loola daal loolu est-ce nag kon xam nga ni kooku noonu amul professionnalisme. alors que am na secret médical quand même. Hmm. mais te yoonam da ca nekkul sax ndaxte moom il n'est pas un la hmm. yow tey jii nii da nga koy diagnostiqué bu boobaa doo tooñ nga foog. Hmm. loolu kese la c'est parce que amuñu formation amuñu professionnalisme c'est des gros bras doole la ñu xam jaay doole la ñu xam xeex la ñu xam la ñuy def duñ ci ànd seen xel. seen doole rek la ñuy mm-hmm. donc euh, loolu noonu yëpp daal vraiment mi ngi noonu Myriam ci loolu da yëngu ku yëngu mu indi la nervi yi teg keroog rek Aïda Soumaré ban ko waree installé si dañu mm-hmm. ñëw ba ca bunt ba mu indi ay nervi teg ci ñoo xam ne ñooy sa kilifa les volontaires de l'ASBEF tant soit peu ak lu ñu mënti wax ñooy kilifa yi ba jusqu'à l'extinction du soleil les volontaires de l'ASBEF ñooy kilifa yi léegi léegi moom moom ki nga xam ne moom mooy Soumaré te ngeen bu ko fa teg moom mm-hmm. actuellement mu ngi liggéey foofu nii mu ngi ñëw chaque jour. non euh, mënu fa ñëw. ndaxte ñëwee ñu ko doole buntu xataal ko. Mm-hmm. maintenant xeex du ñu xuloo te mm-hmm. lu tax ñu ne du ñu xeex du ñu xuloo du ñu tooñ ndaxte ñoo ne suñuy droit. Aida Soumaré bu ko neexoon tey jii ñëw jàmmaar la ñu rayante mm-hmm. ñu day toog par la force waaye ay sénégalais lañ ñu ñëpp tey jii koo fi gaañ wala koo fi rey budul sa mbok xam nga mbokkam mm-hmm. te mbokk ñu ne jaru ko Miriam bu ko jaralee tur bakkan wala bu ko jaralee gaañante wala bu ko xeex loolu du ko jaral ayda ndaxte lu tax yoon mi ngi fi mm-hmm. te fépp foo xam ne war nañ fa dem dem nañ fa di xaar kilifa yi nga xam ne ñooy jiite Sénégal ci ñooñu ñu décider ñu ñëw fekk fa mu nekk jëlee ka fa ci nii wala ci naa. Mm-hmm. yaa ngi wax point bu essentiel. Mm-hmm. on a fait tous les recours nécessaires. Mm-hmm. commissariat dem nañ fa central commissariat bu jëppal au parquet dem nañ fa fépp dem nañ fa ñoo ngi leen di toog di leen déglu lu ci yéex ci ñoom. yaa ngi wax point bu essentiel parce que quand euh, lu mu bon bon euh, quand même ASBEF quoi qu'on puisse dire euh, mm-hmm. dafa am mission publique tey jii di faj nit ñi di leen toppatoo ak yooyu tey ministère de la santé coow li ak li muy commencé yàgg yëpp ban jéego ñoom lañ ci def en tant que autorité sanitaire bi ci réew mi. ah bi coow li di soogaa di tàmbali. Mm-hmm. daaw si au mois de mai. Euh, district euh, Gaspard Camara médecin chef district bi docteur Roqe. Mm. Euh, ñëw na fa. ñëw na fa à deux reprises waaye boobu ba léegi déggatul leen. boobu ba léegi ñoom itam déggatul leen. Mm-hmm. et pourtant ñoom la ñuy jàppale. Mm-hmm. yàlla ñoom la ñuy liggéeyal ñoom la ñuy jàppale et tout donc ba tey ji taxawaay ba ca kilifa réew mi waroon am dafa des parce que ñoo ngi yéegi wàcc fu ne wax naan fa. fu ne dugg nañ fa waaye ba tey gisuñu ñu dugal seen loxo carrément pour conflit bi ñu régler ko mu jeex une bonne fois pour toutes. Mhm. donc tamit c'est un appel qu'on lance au ministère de la santé au ministère de l'intérieur nga xam ne tey jii ni reconnaissance ASBEF moo ko yore te mhm. la nga xam ni xëy ci mbirum santé la liggéey ba tax na ci ñoom la ñu ne di ànd rek ñoom ñaar vraiment. Euh, bu mu mënee taxaw daal ab justice nga xam ni comme que dossier bi ba léegi ñu ngi ci loxoy juge. Mhm. vraiment ñu indi solution définitive et efficace ci problème mu bi ASBEF continuer ca la mu nekkoon. Mhm. ba tey rek mbokk yi may fàttali nii yéen a ngi déglu seen émission SOS santé ci Rewmi FM tey ñu dalal ki nga xam ne moom mooy Pape Maguette Ndiaye nekk volontaire ci ASBEF ASBEF nag di ab association boo xam ne dañ nekk fii ci biir réew mi donc di euh, toppatoo wérgu yaramu yaay ak doom. pour ñëw un peu tey ci mission ASBEF yi euh, da ngeen am antenne euh, au niveau nation da ngeen am ay antenne au niveau national. exactement mhm. maillage bi naka la naka la demee. Bon, le maillage, euh, euh, le siège se trouve à Dakar. Mm. amoon na antenne Guédiawaye amoon na antenne Saint-Louis amoon na antenne Louga Richard Toll euh, Fatick Kolda Kaolack Balingor Sindialo mm. ay antenne la mais hmm. n'empêche que am nañu ay projet yoo xam ne tey jii nii koy euh, dérouler lu ci mel ni Tamba Kédougou Matam Bakel ak Koungheul. Mhm. waaw yooyu noonu yëpp ay projet li nga xam ne ASBEF am na ay équipes yi nga xam ne ñoo fa ñoo ngi liggéey. Mhm. antennes yi nag mooy les antennes qui ont des volontaires. nga xam ne dañu ñëw taxaw ngir liggéey def seen doole ci ASBEF ñooñu dix antennes la dix antennes yooyu mooy ñu ma lim léegi au niveau national. Mhm. Euh, tey jii est-ce que crise bi nga xamante ne am na peut-être amul impact tey ci antenne yooyu ni ñu doon doxalee seen i activité que même au niveau de Dakar sentir ngeen euh, retombées négative yu crise bi. tout à fait tout à fait parce que déjà on tend à ce que yenn antenne sax dafa a tëj bu ci mel ni euh, bu kaw la. Hmm. clinique ba fonctionné tul. fi ni c'est des projets communautaires rek ñoo fa nekk di daw muy PRN. te PRN bi sax dafa am ay nasax nasax donc loolu noonu impact la yeneen impact yi mooy au niveau des antennes am na ci ay personnels yi nga xam ne mënatuñ foo continuer di liggéey parce que mënatuñ leen sax faj ndaxte la crise bu jugee ca boobu ba dafay laal fépp yenn volontaires yi bàyyi nañu ndaxte dañu gis ni ni muy doxee ak yenn daf ci am yenn volontaires yoo xam Myriam daf leen di fay daf leen di neexal ngir ñu koy jàppale. dafa am ay dafa am ay tëb du mën a tëb sax peut-être ak ñoom ne dañ leen rax. Euh, des corrompus. da hmm. ngaa mën tuddee si des corrompus. des ay ñoo xam ay volontaire lañu waroon taxaw ngir njëriñu asbef mais taxaw ngir njëriñu benn nit. bëgguma tudd tur nag ndax bëgguma tooñ. Hmm. mais xam nañu seen bopp. ñaar lañu ba ñett ñoo xam ne tey jii lu Miriam wax. moom la ñu wax ndaxte kula la abali bët moo lay wax fa ngay xool ndaxte ku ci ñëw ñu jox sa enveloppe sa euh, ñu ñu ñu jox sa enveloppe orange ma ne yay dàqante wari yay dàqante wax dëgg fa neex yàlla ab gor ku ko yàgg di jox la muy dundee bu yàggee nga soppi ko mala mm. te ñoom na ci yoon boobu lañ nekk Hmm. Euh, loolu tey jii mu mel ni kon rang dispersé am na parce que bu fekkente ne ñii euh, jàppuñu ci combat bi comme il le faut donc tey xeex bi day gën a metti bu ngeen hmm. nekkee en rang dispersé parce que peut-être loolu moo tax tey euh, ki ngeen di xeexal am gën a am fit ci ci mbir mi. waaw mais mais mais mais loolu c'est tout à fait normal ndaxte ndaxte ndaxte looloo guddal jël bi ndaxte média dafa xool fi nga xam ni fa lay metti mu ne xaaral ma dem foofu noonu te mooy lan ñeen nañu membre volontaire nga xam ne ñii ils ont euh, ils n'ont pas les épaules mu jënd leen mais ñooñu dëkk kaasal te ñooñu kilifa yi maanaam mooy volontaire yi mooy li mm. kilifa yi bu ne waaw waaw googoy te taxaw bu ne déet déet googoy taxaw. maintenant nag mu am ci ñun ci corrompre ba ñeneen ñi nga xam ne ànd ak moom seen ngor seen euh, fulla ba léegi gis ne lii kat warul ñoom ñu mer ci loolu sax am na si ñoo xam dañoo mer sax toog jedd ndaxte gi ni ñu gisee ASBEF di doxee wax dëgg day metti seen xol ba mënatuñ ko muñ te mënatuñ ci continuer ci loolu ndaxte c'est des volontaires aguerris yi nga xam ne ñoo ko ñoo ko sos taxawal ko boobu ba léegi ñu nekk fi mais ba tey jii corruption boobu noonu moo indi ASBEF ba tey am yenn problème yi mu Hmm. Euh, euh, gis euh, par exemple ku mel ni Mandiang pour le citer. Euh, hmm. sax moom jàpp na bu baax ci émission bi donc hmm. mandian mmh. moom bokkoon na si ñi nga xam ne ci première heure yi ñoom ñoo porté woon la combat pour pour mbir mi mais tey moom itam gis nañ ne voilà. effectivement nekkatu fa Mandiang Mandiang c'était c'était du personnel. nekk aussi une mémoire vive nga xam ni mooy. ma nekkoon bi ASBEF yoroon le programme jeune mhm. muy les euh, a de jeunes yi nga xam ñoo nekk ASBEF yëpp muy la mage moo leen installé ci Sénégal yëpp mhm. te au niveau de l'Afrique aussi ñu jàpp ci bu baax a baax àndul woon ci ni mu ngi doon doxalee mhm. jaay ko doole jëkkëf ak ay moroom yoo xam ne tey jii nii bëri ci mel ni chef comptable fi nekkoon muy fari ci mel ni responsable ressources humaines bi muy Oumy ku ci mel ni gynécologue muy docteur Binta. Mm-hmm. docteur médecin généraliste bi docteur Lo. ku ci mel nga xam ne chauffeur la nekk fi ba ñaari at tese ko mu retraite mu ngi dàq ko. Mm-hmm. ndaxte àndul woon ci li nga xam ni moom la nekk di doxalee. yooyu xam nga parce que jaay doole kese la ndaxte ñooñ dañ taxaw ni ko déet. te am na ci seen ay yeneen i morom yoo xam ne tey jii nii voilà. Eh, mu leen toog di fi lim ku si nekk rek da leen ndaxte ni déet. ku na les da ngeen di dem. Euh, gis nañ aussi euh, ngeen amoon peut-être ay soucis ak euh, préfet parce que préfet am na ay décisions yoo xamante ne jëloon na ko ci ci ci mbir mi. par mhm. exemple am na sax koo xam ne ki nga xam ne moom la préfet désigné ba comité exécutif bi daal di bañ. Mhm. donc mbir mi exactement naka la demee woon. xam nga dafa dafa dañu daaw. coow dafa tàmbali. Mm-hmm. bi coow lu tàmbalee. Euh, ñu demoon saisir le préfet parce que tamit quoi qu'on puisse ñooy kilifa mm-hmm. mu ñoo defoon une première médiation. def ak une seconde médiation waaye troisième médiation ni leen mm-hmm. personnel bi nga xam ne ñoo nekk di kaas ku ci àndul ak Myriam Makeba ko ñung mm. man sama bopp dinaa ñëw naa la jàpp tëj la mm. quoi ku ma fekkati ngay taxaw Myriam la mu wax nga ni doo ko man sama bopp maa lay jàpp maa lay sanctionné sama bopp. kon dafa féetewoo nag Myriam kon. moom dafa mujj jeng. waaw moom dafa mujj te loolu ba mu koy wax ñooy woon ci biir salle de conférence ba toog biir biir asbef la woon. préfet mm. mu toog foofu fa la ko waxee. ñu maa lay sanctionné kon tënku leen ci li nga xam ne moom moom la leen wax ah te dëgg fa nag yàlla doon ci moom nag ndax moo kilifa gi. moom mm-hmm. itam mu amee taxawaay googu mu <laughs> mbir mi du neex a faj. Mm. waaw kenn xamul nag euh, revirement googu noonu lu ko waral. Mm. waaye mu nga noonu doy na waar <laughs> voilà ba tey rek ñu wëyandi tey jii dañu nekk ci euh, quand même crise euh, crise sanitaire boo xam ne àdduna bi yëpp la euh, mm-hmm. tey kuréel bu mel ni ASBEF ñu mm-hmm. xaar ko ci ñu xaaroon ko parce que je sais mm-hmm. pas trop yenn activité ngeen di def sur le terrain ndax yeneen ciy def ci Covid bi et ndax peut-être yéen tam crise bi ngeen di jànkonteel tey ji mu laaj sensibilisation ak soññu askan wi et tout tey lan mooy rôle ak action activité yi nga xam ne ASBEF mu koy def ci ci côté boobu. bon nii ni ni dommage. Mm. Euh, dommage que ASBEF fa mu waroon taxawee taxawee fa. Mm-hmm. ndaxte euh, ASBEF ku ne xamuñu ci des activités communautaires. Mm-hmm. donc Covid bi nii waroon ko mën gis sur le terrain. Mm. ngir mu mën a def. donc wax dëgg fa neex yàlla defu ci dara. amul benn activité boo xam ne gis nañu aspect def ko ci mooy des activités de sensibilisation des activités de communication nga xam ci loolu la ñu xamee woon aspect mm-hmm. ci dara du loo xam def na ko ci ngir taxawal population bi jàppale population bi et vraiment dommage euh, nga xam ne tey jii ñu waroon ko mën a dépasser mm-hmm. tout en sachant que voilà yaakaar nañu vraiment que que que mbir mi gaaw mbir mi gaaw a am une épilogue mm-hmm. pour que vraiment ASBEF ci yoon bi ko xamee woon ci Sénégal mm-hmm. mu nekk lu doy waar voilà euh, tey jii aussi euh, pour parler un peu ci bi euh, mm-hmm. nan ngeen gisee gestion bi nga xam ne am na ci surtout au niveau communication sensibilisation On, on félicite d'abord nos autorités ministère de la santé surtout. gis nañ ni boobu ba du lundi au dimanche ñoo ngi ci liggéey muy euh, loo xam ne vraiment c'est quelque chose à féliciter. Mm. aussi le président de la république. Mm. ndaxte kilifa la goo xam ne taxawa taxawaay kilifa. xool na lay jëriñ mu ciy wax te di ci dox te di ko digle. Mm. tout en sachant que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Mm. te ñun doomu aadama lu muy def rek dina am loo xam ne dinañ ko mën a améliorer waat la communication bi nga xam ne ministère de la santé mi ngi ko ciy def moom c'est exceptionnel ndaxte lépp leer na. Mm. tey jii ku ne xam nga Covid mooy lan ku ne xam nga kaay yi ñooy lan ku ne xam nga fa yi yi féete xëy na ngir bañ stigmatisation tax na ñu améliorer waat affiner waat seen système de communication ba tax na ñu yegg si fii ne yegg si mais nag di gën a ñaax naan leen doyul ndaxte fi ni toll bi dafa am président xëy na ñeewantal na ñi nga xam ne doon liggéey ñeewantal na borom kër yi ñeewantal na réew mi ba tax na mu am un relâchement bi nga xam ne ba def na ko ci le mesures yi nga xam moom lañ jëloon. Mm. waaye man de bu doon sama sago. Mm. avant ñu doon bàyyi le couvre-feu ak euh, état d'urgence bi. dama man si sama xalaat nag ñoom dañu waroon tëj Ndakaaru Njaay te Diourbel te cees ci diirum ñaar fukki fan rek. maanaam confinement bi nga xam ne waroon nañ ko teel a def lañu lañu deful donc lu ci am na foofu. def ko confinement total total nag Dakar Njaay kenn du dugg kenn du génn Thiès kenn du dugg kenn du génn Diourbel kazaalika loolu bu ñu ko defoon vingt cinq jours gëm naa ne fi yegg si. donc on a raté occasion bi nga xam ne amoon nañ ko pour. Euh, euh, vraiment régler mbir ndax ay peut-être considération yeneen yoo xam ne. voilà euh, d'une manière définitive on a raté tournant là c'est un tournant décisif parce que bakkaay yi di soogaa di multiplier wu tey bu ñu tëjoon nag fa ñu waroon tëj lijjanti nañ ko jàll ci leneen mais nga tamit. Euh, Sénégal dafa di réew moo xam dafa naqa di liggéeyam. Hmm. ndax dala naan lii laa bëgg nga ndil ko lii mun lee bëgg. mais est-ce que est-ce que tey euh, koo xam ne day jiite warul am peut-être benn euh, vision topp ci loolu gis ne lii nii moom mooy baax topp ci loolu sans pour autant céder à certaines pressions. xam nga dafa am ay dëgg yu tase. Hmm. ay yu tase boo tëjee confinement total nit ñi duñ lekk duñ naan. Hmm. ndaxte fii kat ah du ma ni kenn amu ko de waaye borom kër yi nga xam ne am na mhm. euh, lu ñu lekk tay ba denc suba. ak ginnaaw si mhm. bëriwul fi. Mhm. kon bokk loolu dafa nar a métti ci lu bëri déjà rek couvre-feu confinement partiel bi dafa métti woon ndaxte kër yi dañoo xam ndaxte kër yoo xam ne dañ ñii dañuy nelaw suba ñii di xoole bu ñee yeewoo ñee mën a tëdd kon ñooñu boo leen tëj carrément rap dafay métti ci ñoom kon ay dëgg yu tase waaye nag ku bëgg dara da ngay def dara. Mm-hmm. wér gu yaram gi tamit moo ci ëpp solo ndaxte boo amul wér gu yaram doo génn liggéey. Mm-hmm. kon boog def ci am loo xam ne nit ñi seen bopp ñoo waroon am benn dëgërlaay ak benn muñ bu ñu àndal ak sago ba jàppale président ci décision yi nga xam ne mm-hmm. président xëy na daf leen ñeewoon tam parce que gis na bu mu jëlee yenn décision yi ñu durcir les mesures metti woon na ci nit jooytu nañ ko fu nekk wax nañ ko fu nekk ba xale yi sax mu di génne di jàmmaarloo Euh, force de l'ordre yi ci loo xam ne dañ ko ñaawlu torop mm. te koo xam ne ñetti weer bàyyi na kër bàyyi njabootam génn ngir aatu ngir taxawal li nga xam ne moom la yoon dig nga jàkkaarloo di xeexal nga ba ay gaañ gaañ am si loolu noonu waru te du dëgg du Euh, tey ji aussi askan wi yaa ngi koy wax seen responsabilité bëri na ci parce que tey euh, am na ñoo xam ne takkatuñu seen i masque wala vraiment mu nekk mbir moo xam ne dañ koy takk juste bu ñu séenee force de l'ordre finalement mu mel ni xeex bi dañ koy defal nguur gi wala force de l'ordre alors que ku nekk danga war a aar sa bopp aaraale say moroom. am mm. ci dañ ko wàcce ñu tànk seen policier duñ ko takk mhm. dafa mel ni ñoom policier yi tax ñu takk masque yi mhm. nekkatul pour suñu bu yaram mais nag loolu sensibilisation ba ca war la parce que ca ndorteel la policier yi dañu wane doole jaay doole mhm. ngir koy respecter la loi ba après nag nit ñi loolu la def seen parce que euh, sénégalais tamit naturellement dafa ragal alkaati naturellement le sénégalais a peur du policier donc tout le temps répression boobu noonu tout le temps gis-gis boobu la ñu ko nit di am ba léegi te loolu tamit defe indi ay li nga xam ne mooy efficacité bi nga xam ne waroon na ko am. Mhm. Mm-hmm. voilà tey aussi li nga xam ne ba tey moom mooy wàllub euh, stigmatisation bi yaa ngi koy wax sànq bokk na ci li nga xam ne peut-être daal dina retarder un peu yenn effort yi nga xam ne waroon nañ ko def ci ci ci mbir mi donc stigmatisation boobu yéen yaa ngi yëngu ci affaire santé di yëngu ci wàllub euh, communauté yeeg yooyu tey stigmatisation boobu mu nekk loo xam ne quand dafay saper effort yu bëri ci programme de santé yi. Mm-hmm. Mm-hmm. ah bon xam nga xam nga xam nga xam euh, stigmatisation euh, moom ci feebar yëpp la mm-hmm. ndaxte Njaga Mbay way na ko mu ne daw ko wéra di bu ko ba mu xam ko ndax mën naa yokk la ko metti mm-hmm. stigmatisation moom ci fu mu am rek euh, fitna daf koy ndaxte mu ngi stigmatisé day ndaxte place ba mu amoon koy bëgg jël donc on appelle à la responsabilité individuelle et collective pour que nit ñi seen bopp xam ne feebar bi gàcce mhm. ndogalu yàlla la ku mu dal psychologiquement nañ ko jàppale ba yàlla saafara ko te bu ko yàlla saafaraa tamit nga continuer ànd ak moom ci boppam mu leen wax la fa nekk ngir yéen ngeen mën a mont ndaxte la mu sakk ko ma caka xam te mhm. ko noonu ka dal moo leen ni ah covid bi kat nii lay demee nii la mel lii laa daj kon boog moytu leen waaye yow boo ko beddee du la mën a wax loolu ndaxte après barrière dafay am seen diggante te barrière boobu noonu mooy indi nag yow doo mën xam la ca nekk moom du mën a ñëw wax la ko yow tu es te moom da nga koy waat moom mi nga xam ne daf cee feebaroon. Mm-hmm. ndaxte bu dee da ngeen jegeyaantoo ngeen dëkkaate wala ngeen bokk kër wala ngeen bokk liggéeyukaay wala ngeen bokk lenn wala di jëfandikoo loo xam laa lañ ca daf cay am wala jegeyaantoo daf cay am. yow bu dee da nga koy jéem a beddi di ko daw ba nekk ca mbedd ma ba leneen dal la ca nga war a ñëw àndaat ak moom ci li nga xam ne moom leen yàlla boole yaa ngi koy exposé waat te lor nga sa bopp tam mhm, mhm. kon boog vraiment cette stigmatisation là il faut que population bi tamit bàyyi ci xel te euh, nangu ndogalu yàlla te ànd ak xam ne ñooy liggéey ci loolu ñi xam ne ñoom lu daloon ak ñi xam ne tey jii muy mag ñeeg ndaw ñeeg ñëpp ngir ñu mën a taxaw continuer la sensibilisation et la communication pour que vraiment ñëpp mën ci mucc yàlla jàppale Sénégal jàppale ci àdduna jàppale ci mhm. am na am na solo donc euh, li des ci émission bi bariwul mhm. dañuy dellu si un peu rek ci euh, problème bi nga xam ne am na au niveau de l'ASBEF mhm. donc tey jii nii euh, lan mooy la prochaine étape ci peut-être lutte bi da ngeen di toog xaar justice def li muy def wala lan ngeen fas yéene bon dañuy euh, dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy toog xaar déjà. Mm-hmm. parce que comme que saisir nañu euh, saisir nañu des les juridictions compétentes. Mm-hmm. mënuñu joggi li nga xam ne moom la fi yoon teg. waaye tamit wax dëgg fa neex yàlla ay yow dafa am loo xam ne mënul continuer te mu ngi ndaxte asbef ba tey nii may wax ak Mm-hmm. boo xam siège ba tey Dakar fayoo ko gul seen salaire. Mm-hmm. ba nii may wax ak yow nii fayoo ko seen salaire. kon boobu ku dem di nga xam la fa nekk. ba tey nii may wax ak yow nii ASBEF prix ko mujj yokk. kon mm-hmm. social ban doon wax ASBEF amatu fa. ba tey nii may wax ak yow ASBEF jàmm amatu fa. nit ñi kenn wóolootul sa morom. kenn àndatul ak sa morom. kenn jege àndawul ak sa morom. ndaxte ku si nekk rek yaa ngi mi féewu ndaxte directrice bi elle a réussi à disperser ak tamit à yàq diggante yi nga xam ne moo fa nekkoon ba indi xiiro ak ñaayoo ci ñëpp nag personnel ak volontaire kon nag loolu mun te tëguy ndaxte loolu dafay yàq kon boog les autorités compétentes da leen di ñaaf président de la république jiite ko ci xam ne c'est le père de la nation le ministre de la santé nga xam ne moom la ñu jàppale le ministre de l'intérieur nga xam ne moom moo ñu teg moo ñuy aar le ministre de la justice nga xam ne moom mooy jeeru lépp loo xam ne moom les appels pour que ñoom seen bopp ñu ñu xool saytu gis li fi nekk ci biir aspect bi. Mm-hmm. jàppale travailleurs jàppale population jàppale volontaire pour continuer à lutter pour continuer à à à assister et pour continuer aussi à œuvrer pour le bien-être de la famille et de la femme sénégalaise. Mmh. est-ce que jëm ngeen peut-être jege aussi euh, syndicat yu ci mel ay ànd gësëm ak yooyu nga xam ne dañuy euh, taxaw ci wàllu wérgu yaram ak yooyu. pour ñu jàppale leen ci xeex bi. syndicat bi nga xam ne ñoom la yenn travailleurs ASBEF nekkoon ba tax na ñoom dañu mujj démissionné sax travailleurs ASBEF yi ndaxte ANACIM ñu te leen waroon jàppale ci syndicat bi sax mu jig dañ ne directrice ba da ko jënd ndaxte moom itamit mu jigi kenn xamatul woon ban tànk la taxawee. Hmm. Euh, tamit. moo tax daal fañ toll ni xeex bi ñu jëlul ko seen bopp ba ñi dañ koy doxal seen bopp ndaxte tamit lu syndicat mën gëm naa ni volontaire aspect foo na ko mën ndaxte ay kilifa lañu mm-hmm. Ah. Mm-hmm. quand je dis syndicat c'est plus peut-être yeneen syndicat yi yi nekk donc euh, de de l'ASBEF comme. Mm-hmm. ñoom xam nga xam nga xam nga syndicat yi dafa am lu muy doxee boo ci affilié wu tamit ñoom mënuñu porter sa combat. donc loolu problème d'affiliation la woon fa ñu affilié gis nañ ni problème bi mun woon réglé ba tax na ñoom seen bopp ñu ba ba ba tax na ñu jóge fa mais quand même on appelle tout le ku ci mën a jàpp daal nañ ci mën a ñëw nag ci ñu jàpp. pour médiation am ci ba ci ah, ah. médiateur de la république war na ci mën a wax aussi. ah yaakaar naa mm. am war a mm. man mi personnellement dem naa médiateur de la république expliqué naa leen le problème. man personnellement man ni dem naa. te te amoo benn réponse a ah, ba tey dégguñu leen tamit. Hmm. Hmm. donc euh, ma nga noonu daal. Hmm. au niveau de l'ASBEF euh, boo doon xayma ay ñaata travailleurs la à peu près. ASBEF a euh, une centaine de travailleurs. d'accord. am na tamit li ñuy woowee les emplois indirects maanaam. voilà relais communautaire bi nga xam ñoom la ñuy jël di leen fay ay journée wala di leen fay par activité ñooñu moom nga xam nu mu toll parce que dëkk bu nekk on o avec plus d'une centaine de relais communautaires. Mhm. ñoom ñooy jàppale dans na bu baax a baax parce que centaine boobu noonu ci ëpp jugee nañ fa. ñu ci ëpp jugee fa ñu ci ëpp tey jii yegg si nañ si njëxitalu émission bi Pape Maguette euh, Ndiaye ñu may la rek nga euh, tàggatu ak mbokki auditeurs yi ak peut-être message bi nga xam ne yaa ngi koy jox euh, travailleurs yi direction bi ba ci képp daal vraiment koo bëgg daal mu jàpp ci mbir mi. bon xanaa sant yàlla. sant yàlla ñaan yàlla tamit jàmm dal ndaxte jàmm ci la lépp xam waaye koy suuxat te jàmm ko nag dañ koy bëgg eh, di ñaan tamit nga xam ne mooy ñu yàmmake ba mu delloo si xelam ndaxte donte bu amee dëgg ca la muy woote waaye gor sax waru toog ban nekk dinde sa loxo ci ndab bu dee ña nga àndal ci liggéey ñoom mujjug ñoo ne bëggutunu nga liggéey yow bëggutunu nga jiite ay liggéey woon lan la laay seppe salo loxo te ndaxte kaay ma jiite leen ñoo jiite nu moo message le boo xam dama koy lancer suñu jigéen la suñu xarit la waaye nag daf loo xam jëriñ na askan moo ëpp solo foofu ka leneen dañ koy ñaan na xool ci lim fi fekkoon xool ci li fi nekk te xalaat lam fi nar a bàyyi ngallaawaay bu mu ñaawal ko deram bu mu ñaawal wayu les volontaires de l'ASBEF tamit ñoo ngi leen di wax ñoom ñooy kilifa yi te kilifa njaaxanaay la war tëdde kon kilifa yooyu noonu bu ñu wane seen parparloo ndaxte mooy indi fi pour seen biir kër. Mhm. te boobaa du leen jëriñ te du jëriñ kenn. comme boobu noonu mhm. di la seen te xam ne asbef yëfi ñëpp la te yëfi ñëpp lu nekk ku nekk daf ca nekk kon mhm. ñoom seen nañu dellu si waat xalaataat li nga xam ne moom lañ fi bàyyi xalaataat li nga xam ne moom lañu yore te xalaataat li nga xam ne moom la asbef di jëriñ population bi les autorités nag ñoom leen di ñaan ñoom seen bopp nañ jël les choses en main li jënt lii ndaxte Sénégal moo ciy parce que def liggéeyalul Gambie liggéeyalul Mauritanie Sénégal lay liggéeyal population sénégalaise ci jëriñ ci Sénégal tey jii bépp ci Sénégal bu ASBEF nekk jigéen ñi dañ ci ciy jëriñu jigéen ñi dañ koy fréquenté jeunesse bi dañ fay ñëw jeunesse bi dañ koy fréquenté kon boobu mbir la moo xam ne ñun waruñu seetaan muy nasax waruñu seetaan muy tëj waruñu seetaan muy yàq les travailleurs dañuy liggéey di naan seen doole di ñaq di yóbbu seen njaboot kon boobu la ñuy def. buñ ko jaaralee ci yoon rek kenn du leen mënal dara nañu continuer jàpp te tawu bàyyi nañu continuer dem te tawu bàyyi nañu continuer dox te tawu bàyyi te nga xam ne la réussite est au bout de l'effort te gëm nañ ci lii nekk ni dina ko jàll ba asbef dellu fa mu nekkoon asbef am la mu amoon di jëriñ la mu daan jëriñ ñëpp jëriñu ci ñëpp tedd ci ñëpp taxaw si ñëpp am ci yow itam dina doon vraiment lay matu ci opportunité bi nga xam ne moom la ñu jox. Mm-hmm. ngir ñu waxtaan. leeral xam nit ñi mën a xam tamit lu ci doon lu mu doon. Mhm. ba yaakaar nañ ci tey ji buñ ci génnee. Mhm. dina am yenn réaction positive yi nga xam ne moom la am ba ku si nekk vraiment war ci mën a ñëw jëriñu ci nekk war ci mën a ci am avancement. Mhm, ñu ci am yaakaar aussi di la jëfal également Pape Maguette euh, Ndiaye ci disponibilité bi ak explication yi nga xam ne tey jox nga ñu ko pour vraiment ñu gën a mën a comprendre situation bi nga xam ne. moom moo xew au niveau de de l'ASPEF di la jaajëfal bu baax di fàttale ni yaa ngi nekk euh, volontaire ci ASBEF di euh, association pour le bien-être familial nekk nag kuréel boo xam ne yàgg na fi di taxaw ci euh, lépp loo xam ne jëm na ci wàllu famille ak daal luy gën a ñoŋal seen i nekkin seen wàllu wérgu yaram di la jaajëfal di jaajëfal également ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañu ci émission bi di dig daje vendredi prochain ci la 97.5 Rewmi FM si seen émission SOS santé